Uh halaan bikum kuy mbokk kam nang ko ñaanal Ousmane Sonko malaanu kiiraayu député bi lañ nar a futti bam set yóbbu ko ci yoon mu jaaree fa ñu tëj ko kaso laas yéene kaay moo ñu ko xamal coowal 94 milliards yi gaañi li jënti nañ yi ba mu sotti yoon wu ñu xaw fi mu toll nii mooy ne Ousmane Sonko daal li tax procureur mën a gut a ubbi dossier ngir ñu atte ko mooy malaanu kiiraayam bi ndax moom député la laas yéene kaay nag nee na gaañi noppi nañ pare nañ léegi fañ koy summi su boobaa nag coow li nekk benn enquête yéene kaay na ko Eh, def leen ndànk de gis ngeen mbiri Ousmane Sonko lii xeex bu métti ñàkkante bu métti moo ci nar a xam a yaaw seet ñeenti plainte moom lañ jox procureur ca kaw taabalam ba ku nekk ngay xëcc jëmale sa moom ku nekk ngi ràcc jëmale sa kanam te su boobaa fay dëll tuumal nga ma porté naa la plainte ma ne njëkkoon naa la porté keneen ñëw porté la plainte ngeen di porté wante te ñoom ñëpp ñuy xeex nag di porté wante plainte défense lañ partie civile leen ba tax enquête yi ne kaay na léegi nag kon est que procureur dana ubbi ab dem taxaw ca kanam tribunal ba loolu nag li leer l'observateur ba mu wax ñu ko tey mooy mbiru Karim Wade bi yëngalaat nguurug Sénégal ci coowal comité des droits de l'homme bu Sénégal bi demoon ca mbootaay xeede jàkkaarloo ak ñoom wax na nguurug Sénégal noppi na ngir dàmpu delloo Karim Wade àq ak yelleefam bu laajee sax ñu jox ko xaalis te mu naqari kilifay réew mi rawatina jëwriñ ju ñu dénk wàllu bitim réew fa weddi kàddu yooyu ba tëdd ca naaj wa tey nag l'observateur nee nañu altine ci l lépp di leer ndax danañ toog ak membre comité ba ñu leeral yooyu ñu wax fan lañ ko teg yéen a kaay na am na ñaar ñoo xam ne ca comité lañ bokk ay daan yu mag moom la nguurug Sénégal nara teg ci seen kaw Alioune Tine ak Seydi Gassama na leen xëy bàyyi leen waxu caan caan yooyu ngeen di wax ñun xeex ak ak yelleefu doomu aadama mooy suñ liggéey loolu ngeen bëgg def nag du dëgg du yoon te yow jëwriñ jooj ñu dénk wàlluk bitim réew weddi gi nga weddi sa comité bi la wax te Nations Unies ñun ànduñ ci kon duñ fi seetaan ngeen fi saraxe kenn ba tax si di quotidien Amadou Ba fi mu toll ni siis ba mu toog yànq na de may ragal mu bécceeku jóoru ci rek ne matt ga damm na te téll mën naa nekk aw mbéj nay leer la ne lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na Karim Wade nekkul senegal waaye senegal la nekk waa lan mooy loolu le quotidien yéen a kaay na xaar ma leeral leen ko aa ah yaw seet gàttal Karim ku nekk xam na ne ma nga Qatar loolu moo xamul werante waaye tey jii Sénégal coow lu am ci nguuru Sénégal Karim Wade juboo diggante Ablaye Wade Macky Sall Karim Wade la lu yëngu daal ci réew mi Karim Wade moo nekk ca bopp lépp lu baayam defit Ablaye Wade Karim Wade ko ko sant te moom moo tax muy def waaw kooku mi ngi Sénégal wala nekkul Sénégal nekkoo fi di yëngal kon soo fi nekkoon nu muy mel la ñu bëgg a mel moom armée bu Sénégal tax les écoles yéen kaay ne armée air soldat yi ci kaw asamaan yoo xam ne fay jël ay missile yooyu ñuy sànni muy naaw ak a kalaate diggante 2020 nak ak 2029 ci len len koy jox ñeneen ñu ñu nara jox ñaari avion te du yag dara moy Air senegal a yaw seetal njiit la Ibrahima kam moko ko xamle ci l'Observateur ma ngay wax yokute kër ga ak taxaway bi mu am ëllëg ci kaw jaww ji di naaw diggante parek Dakar par guddi nekkinu kër ga ak yéenam lepp leral nako ci yene kay ba la leer ba melni jant jant subaar moy ne magal ku tedd ga Xaadimu Rasuul cérémonie officielle ba amal nañ ko niki dembu khalifa général des Mourides nak Serigne muntaka basirou Mbacké yëkkati na fa kaddu yu ama am solo wo ndaw ñi ci jang ak ak yar xam-xam liggéey jaamu yàlla delloo na taaliba yi ci borom bi këru diine yi handoo mankoo nekk benn kàddu xalifa ba sëriñ Bass Abdou Khadre moo ko jottali wal fajër yéen a kaay ne nguuru Sénégal ñoom nangu nañ na fa ñoo lajji daanu ba xalangu def ci màggal gi ayaw seetal wàllu ndox quartier yu bëri Touba amuñu woon ndox màggal gu métti ay jafe-jafe te lu ji njaaga état bi la comme nag tontu du forox état bu Sénégal ci kàddu jëwrin ministre yu bari délégation bu mag ba demoon ci cérémonie officielle ba nee nañ bu soobee yàlla balaa màggal ak gi mboolem jafe-jafe bu ñu nemmeeku ren ci màggal gi ñàkkum ndox meeg lépp la ñuy régler ba mu seen kàddu ci source ay yéen kaay Moustapha Diakhaté jiite woon fi député yu benn bokk yaakaar ci wal fajar yéen kaay mel ni ku naan leen hey digge leen lu ngeen mën baax na waxtaan wax dëgg ca la ñëw fii naan danañ lii danañ laa déwén yàggut de te gis nga man su ma leen waxee dëgg jafe-jafe ndox mi ci Touba li koy régler du loolu ngeen wax de yéen état bi déedéet fa ñoo war a dindi ñàkk a jënd ndox ba am Touba ndox léegi nag buñ jaayee ndox ñuy fay facture comme a am ndox mu sell ñëpp jot ci waaye lu amul jënd normale li narta normal ci njiit réew Macky Sall mooy wote yi di ñëw wal fajir yéen a kaay nee na boo moytuwul Macky mën na fee doxee fori de maanaam du baax la de ndax sénégalais yi ko wan ginnaaw ñoo bari tàggat yaram jaar-jaaru Sadio Mané ci équipe nationale ndorte la ba jamono ji muy xëccoo ballon d'or ci la source ay yéen a kaay xëy addu la mu addu moom stade yéen a kaay mooy jongante bu mag te nar a diggante Man U ak Liverpool dimanche lay doon ca Angleterre ma ci sunu lamb yéen a kaay fekk fa Cheikh Sow mi jiite woon écurie Rock bu Modou Lo lam ñu xamal tey mooy ne Modou Lo mën te bañ fi mu toll ni amaa Baldé combat boobu fa taxaw far force fa war a xam te normal na waaye li ma xam daal mooy moom Cheikh Sawaye wax de nee na roi des arènes buuru làmb ji Modou Lo bu jàppee Ama Baldé dana ko bank duma ko daan ko jooyloo waa Pikine mu yokk ci ne Eumeu seen tamit mën bañ Balla gay dee na bëri waat ak moom waa ma ne du ma ak diw ñu fay la ay téeméeri millions yu dul xaddu jeex demal nga bëree ji boo ca amee bëñ bu damm ŋaaw wu xar jëbu teppeeku sax garaawut benn cent mille ngay fajoo millions ya des nga lekk